Mewane euh, man la Moulay Diouf man euh, ma bëgg a am ay kàddu yu ndaw yu ma fi sànni euh, maa ngi nuyu ñëpp ñu dëkk ci commune Mewane di leen sargal te di leen baalu ak te di leen baal ak tey ñaanal la monsieur Bara Ngom wudd përi mbërum Kajoor suñu borom may ko jàmm parce que mel na ni ambition yi mu jël nii ci commune Mewane yu baax la parce que dañ nit su baaxee nañ ko laaj mbokk yi te mel na ni mbokk yi nee nañu baax na te wane na ko parce que toute la commune Mawane nee nañu Bara baax na Bara Ngom yaru na Bara Ngom yiw na am na yar am nay teggin te am na sutura te nitu jàmm la si te jàmm ci la lépp xaj kon li ñu ñaan yàlla dénk ko commune bi euh, te bu ko ko dénkee mu nekk yan bu sedd guy yàlla nag ko suñ borom jox euh, mel na nag muy yoon bi parce que bu ne booloo li may woote ni booloo suqali gox bi c'est la première fois ma dégg loolu ci la commune de Méouane bon loolu tax na mu am ci moom yaakaar nee gox ba lañ koy mën a defar bon nit ñi dañuy booloo d'abord bu ñu booloo ba pare gox bi dinañ ko a soqali ci anam bi ñu ko bëggee lan la ñuy def nag mooy nañu bokk ndey bokk bàyyi àndandoo àndandoo di tóorandoo ndax monsieur Bara Ngom jàppale wuñ ko suñu bopp la ñuy jàppale moom moo ñëw pour jàppale parce que fii la jànge fii la màggee fii la yaroo mu suñ borom may ko teranga mu delloo si bi ci commune Meouane ni dama koy bokk ak yéen dama koy ànd ak yéen parce que commune bi d'accord donte la ni mu ngi dox doxinu capital lay dox te yaakaar naa commune Meouane li fiy ruuse kese ci usines yi di dugg ci commune bi bu ñu ko bàyyee teg ko ci commune bi léegi commune nu Mawane mel ni Paris bon parce li ñu am ñun bari na commune yu ko amul kon dañ koy sant yàlla waaye nag dañu ñaan yàlla di am ay njiit yu baax parce njiit bu baax mooy tax commune bi développé te monsieur Bara Ngom ragal na a ni moom rek moo mën a développé bi nu Mawane ci anam yi ba tax na ñu ngi sant ñëpp ñu nekk ci diaspora bi di ci jàpp a ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ci commune nu Mawane ak ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar te waroon na ñëw woteel ci Mewane ñoom ñëpp nañu ñëw indi seen carte yi mobiliser gars yi ñu ñëw déposer seen carte yi pour mën a wotee fii Mewane nga xam ne si boobaa dañuy fal ki nga xamante ni mooy Moussa Bara Ngom wultu përi mbërum Kajoor kon mbokki Kajoor mbokki Mewane mbokki commune Mewane maa ngi waxtaan ak yéen maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm merci beaucoup